xalifa problème bi mooy dakaar xalifa bu fekkee gagné na Dakar avec écart bu rëy mën na yóbbu Amadou premier tour parce que Benno deuxième tour deuxième tour deuxième tour Benno dafa les Benno est bien implanté dans la zone rurale dans les zones rurales mais à Dakar bu fekkee tey ji Dakar Amadou Ba teg na pression euh, euh, Khalifa Sall am na lu bëri lu mu grignoté wala mu mu mu créé benn écart de cinquante pour cinquante cinquante points moom ak deuxième bi rek il peut amener Amadou Ba premier au au il peut amener Amadou Ba au il peut amener Amadou Ba au au au second tour parce que aujourd'hui qui dit que pour le parti socialiste décidé guñu lan mooy seen condition bu ñuy jàppale Despir Benno est-ce que amul est-ce que non parti socialiste dans Benno est-ce que amul est-ce que amul risque est-ce que amul risque moo am ay défection est-ce que amul défection yi kay am na ba pare waaw mais en fait mais l'essentiel du parti socialiste est dans Benno ok léegi défection yooyu noonu si Khalifa réussit à faire un bon ménage et il fait le paquet à Dakar ndax Amadou Ba problème am Dakar Amadou Ba problème am Dakar la dans les zones rurales c'est sûr que Benno mën na génn et à chaque élection Dakar Touba Ziguinchor mais surtout Dakar surtout moom bu am bu bu écartam écartam ak Amadou bu rëyee c'est un risque bu fekkee nag Amadou Ba perte na dakaar mais mu tafu mu mu réduire l'écart mën na mën na mën na mën na am mën na am chance quoi l'autre chose c'est que les gars de Pastef qui ont des problèmes avec bi jaas et xalifa bu fekkee Amadou Ba euh, euh, da génn na bi euh, Khalifa génn ñoo xam naa seen souhait c'est de voir Barthélémy jaas et Khalifa Sall perdre